ci takk-takk mën nga ne jépp jëmb ju dund rek dañuy àtte ne laab na lay bàyyi ko ci moom it moo xam lor wala moo xam ñandaxiit wala moo xam ñaq wala moo xam xayalit ma la moo xam xaaxtandiku yi la moo xam rongoonje la yooyu yëpp laab nañu nga xam ne yooyu bu ñu takkoon ci say yére mbaa ci sa yaram nga julliwaale ko dara du ca nekk ba tey bu ñu nee lépp luy dund laab na boo doon julli am dara luy dund di la riisu rek mbaa nga di ko riisu te yowoo ko waaye fekkul daray sobe takk ko rek sa julli googee dara du ca sikk julli ga baax na loolee di dund moom doonte sax ab xaj la wala mbaam xoox la rek mu ngay dund rek moom jëmm ja laab na bu doon sax luy juddoo ci sobe ni ki yenn sax yi nga xam ne dañuy soqi ko ci medd maanaam juddoo ci medd wala ci ay xayta jëmmi sax yooyu bu leen seeneen sobe takkul rek yooyu jamono laab nañu nga xam ne bu nekkoon ci sa yére mbaa ci sa yaram mbaa fa nga jullee itam du yàq dara ca julli ga du tee nag bu ñu nee lépp luy dund laab na bu ko sobe taqee sobe soosee laal la nag waaw kay loola moo lay yàqal sa julli wextan ñiy fees xam nañ ko bu baax daa am lu ñu tuddee wextan muy ndox mu puur am aw der woo xam ne moo koy ëmb des na ko di faje wextan woowu ndegam la mu bàyyi ko lu dagana lekk la te dañ ko ren di boole ca kon wextan woowu laab na moom laab na ci lekk laab na itam ci bu la taqee du jara dindi mën nga koo julliwaale bu doon wextanu ñu dëgganuta lekk nag wala ñu dagana lekk waaye dafa médd yooyu yëpp wextan woo moom sobale doon dana ko wax ci kanam ba tey lépp loo xam ne yoon nangu na ku ko lekk te moom du lekk sobe lépp lu yoon nangu ku ko lekk te moom du lekk sobe maanaam xamuñu ko ci lekk sobe daal loola am sawam laab na xaytaam laab na ni ki xar ak bëy ak lu bari ci picc ci naaw ci jaww ji xamuñu leen ci lekk sobe te dagan nañoo lekk kon yooyu seenum saw ak seen xayta ni ki seeni neefara yépp laab na laab na ci mu taq la nga julliwaale ko laab na itam ci nga lekkaale ko bañ koo dindi moo tax wala fii miin nañu naan li ñuy wax mbéeru mbéeru mooy dëkkandu xaram yi muy saw nga dëkk saw ma di ko naan di ko fajoo wala moo tudd mbéeru dagan na ba tey mën ngaa jullee ci géttu xar wala géttu bëy wala bu fekkee nag wa du lekk sobe wala gëléem ga yépp bañ leen di yeewu mën nga faa jullee te julli ga dara du ca sikk bu dee nag loo xam ne yoon nangu na ku ko lekk waaye moom dañ koo xam ci lekk sobe moom doonte gis ñu ko sax muy lekk sobe du tee dañuy jàpp ne am sawam sobe la ay xaytaam sobe la di ki ganaar ganaar dañ ko miin ci muy lekk sobe lay tax am sawam ak ay xaytaam laab mooy nga tëj ko mbaa nga yeewu ko di ko xonte lu laab waaye boo ko bàyyee mu wëtt rek moom dañuy jàpp ne lay bàyyi ko ci moom ci saw wala xayta sobe la boo rendee ganaar ga danga war a dindi loola raxas ko ba mu set bañ koo lekkaale te bu la ca dara takkoon it doo ko mën a julliwaale faaw nga dindi ko kon nga takk foofu ne lépp lu ñu nattable ba xam dana lekk sobe wala du ko lekk mbaa sax mu wóor nu ne dana lekk sobe loolu am sawam sobe la ay xeetaam sobe la donte sax tegu na ca sunu bët mu di ko lekk lu muy nag muy lu dagana lekk nga yeew ko di ko xonte lu laab loolaay tax saw maag xayta ya laab kon nag ku yore ay ganaari poulailler yooyu wala mu ciy liggéey mën naa jàpp ne la koy taq ci xaytay ganaar ya lu laab la du aajowoo mu di koo dindi mën na koo julliwaale ba tey nen yi nga xam ne ñooy bàyyikoo ci poulailler yooyu bu ñu taqee luy muru sobe itam muy xaytay ganaar ya it xayta yooyu laab na boo ko raxasut ca ba nga koy baxal it jekki-jekki baxal ko noonu du ko tee baax janax ak lu mel ne moom itam nga di ko seetlu su dee janax joo xam ne du lekk sobe moom dagan naa lekk moom janax kon nag ay xaytaam akum sawam laab na waaye bu dee janax joo xam ne day lekk sobe ni ki janax yu ñuul yi mel ne daañu lekk sobe moom boo leen bàyyee ñuy for yi ñëw baa nga fekk leen rek fañ dëkk ci àll ba dañuy jàpp ne seen xayta sobe la seen saw sobe la boo leen dugalee ci kaaf nag di leen xonte lu laab rek nag kon saw ma laab na xayta ya laab na doomi aadama jamono ya mu dund ñépp maase na ci ne am soowum laab na soow ma laab na ci naan ko laab na itam ci bu la taqee du aajowoo dindi mën nga koo julliwaale mu des nag bu doomi aadama xasee faatu ba noppi ndax soow may génn ci moom laab na wala laabut wax ji gën a wóoru mooy waaw ba tey soow ma laab na ndax doomi aadama nañ ko ormaale woon ba muy dund bu faatoo yi ba tey noonu lañ koy ormaale soo moom dañuy seet lam bàyyi ko yemale ko ak yàpp loolee mu bàyyi ko bu ñu nee nangam yoon day araamal ku lekk aw yàppam xamal ne am soowam itam sobere doon deesu ko mën a naan te it deesu ko mën a julliwaale suñu nee nangam dagan naa lekk ci yoon su fekkee dañ ko rendi ak jamono muy dund soow ma laab na ci boo bëggee lekk lekk la taqee itam mën nga koo julliwaale daañu wax nag su xasee medd moom soow may bàyyi ko ci moom waaye daal ndegam yoon nangu na ku ko lekk moom jëmm jooja bokku ci araam te it meddut soow mu génn ci moom ci yooyu jamono mbaa nga rendi ko ba noppi mu génn ca moom loolu lépp laab na lu ñu siba lekk nag mel ne yi am ab sel di fàdd seeni moroom ni ki siiru ak muus mi nga xam ak yu bare bare ci rabi àll yi bu dee ci yoon maal dañuy sib ku lekk seenu yàpp ba tey seenum soow àtte boobu lay amee yépp rab wuy fàdd moroom ma di ko lekk rek sib nañ nga lekk aw yàppam soow ma it dañu koy sib ci nga naan ko mbaa mu taq la nga di ko julliwaale agul nag ci araam boo ko lekkee taxul nga lekk lu araam boo ko julliwaale itam du tey julli nga baax waaye bañ ngaa julliwaale moo gën kon ci takk-takk lépp lu yoon araamal ku ko lekk mel ne mbaam xoox wala mbaam yi nga xam wala fas bu dee ci gis ci suwaa Malik soow ma itam araam na ci doo ko mën a lekk doo ko mën a julliwaale su fekkee da nga koo raayoon ci sa yaram ngir di ko fajoo nag na nga fexe ba bala ngaa julli raxas ko ba mu set ci ndoxum mel ne mi ngay jàppee bu la ca dara taqee itam ci say yére mbaa fa ngay jullee na nga ko dindee ci ndoxum mel ne mi ngay jàppee ndax sobe la lépp lu dund bu nenee nen ba laab na doonte sax day nenub jaan laab gi mooy bu la taqoon nga julliwaale ko du ko tee baax te bu dee nenub jaan moom deesu ko sañ a lekk ndax lor ga muy loro ka koy lekk loolaa koy araamal waaye nag jëmm ji laab na ci bu ko julliwaale woon du tey julli ga baax nga génn ci nag nen bu nëpp nen bu demee ba soppiku yàqu moom sobe la deesu ko sañ a lekk te bu la taqee faaw nga dindi ko doo ko mën a julliwaale nga génn ci itam nen boo xam ne loola daa medd ba noppi door koo nen ni ki ganaar su meddee ab nen génn ca moom nen boobu sobe la de bu dee dund nen wala ñu rendi ko noppi am nen génn ci moom yépp laab na waaye nag bu xasee medd moom moo xam ganaar la moo xam leneen la nen bu génn ci moom rek sobe la dañuy joxe nag ab takk-takk di wax naa loo gis mu amee nopp buy lang loo gis mu amee nopp buy lang rek xam ne day jur waaye du nen loo gis nag ab noppam def bën bën kese yam ci te amul luy lang moom day nen ba tey mën ngaa jàppale foofu boo boolee ay nen dool leen baxal ba nga baxalee ba noppi nag am ca nen yu baaxut nen yu yàqu bañ na sobe la kooku ndox ma ci boppam la ñuy xool jëm ndox ma ci boppam bu fekkee ne nen boobee yàqu soppi na ko ci couleur ñu mën koo xàmmee mbaa cafka mbaa xet mboolem nen yëpp yëpp lañ ñu tuur benn du ca baax waaye nag bu fekkee jëmmi ndox ma ci boppam soppi ko wut ci couleur mbaa cafka mbaa xet mooy nen ba yàqu sottiwul dara ca ndox ma kon jëmi nen ba yàqu rek ngay wacc moom doo ko sañ a lekk waaye ci des moom danga leen mën a lekk kon booy baxal ay nen dañuy taamu nga baril ndox ma ba nga xamee ne bu ci amee benn bu yàqu itam du àgg ci soppi ndox ma bañ naa yépp yépp ngay wacc moo tax saraa bi naa ida suliqa al baydu fi ma in xaarin xata nadiya wa wujida ba'duhu madiran kushifa عن حال الماء الذي سلق فيه فإن وجد متغيرا لونا أو طعما أو ريحا طرح كل البيض المسلوق لتنجسه بما رشه من الفاسد وإن وجد الماء كحاله ولم يتغير شيء من أوصافه أكل الصحيح وطرح الفاسد فقط فينبغي لمن أراد أن يسلق بيضا أن يغسل ظاهره مما تلوث به من بطن الحيوان ثم يكثر الماء الذي يريد أن يسلق البيض فيه لئلا يتغير أوجه dañuy seet ba xam soppiku na bu melatut na meloon dañ koy lekk wala déet su fekkee ndaa wàccute na meloon rek ba nga koy lekk la mel wàcc moomu laab na waaye bu xasee soppiku doon te agul ci xayta it waaye soppiku na rek moom melatut na ñaama meloon sobe la loolu nag lu mat a xam la ndax léeg-léeg ngay wàcc rek mu taq la ci sa yaram mbaa mu taq la ci say sir li wax gàll itam noonu la mel su lekkee ba bàq gi fees lool boobu la bàq ngay génne di ko sànni moo tudd am ngal moom it su fekkee soppikuwul ci nañam wa meloon rek laab na boo xasee soppiku nag sobe la laabatut dafa am xeetu gëtt goo xam ne cosaan la deret la woon waaye nag ba mu soppikoo ba doon gëtt dañuy jàpp ne laab na der wa nga xam ne moo koy ëmb itam laab na nee nañu kéwél day am lu mel ne ab tut maanaam ab géer su matee nag mën naa mu dem ba riisu ci garab tut boobee wala gér boobee rot nga xam ne cosaan la deret la woon waaye day soppiku ne xet ñu koy def gëtt di ko xeeñoo su boobaa nañ jàpp ne jëmmi gëtt ga bu loolu ñu diwoo tam doonoon deret laab na der wa ko ëmb itam laab na jamaat buñ ko waxee fii ci fiq mooy loo xam ne amul ruu te bàyyi ko ci lu am ruu loolu nag ak lu mën doon ci xeetu suuf mbaa xeetu gàncax rek laab na ndegam du màndal su dee màndal moom sobe la jamaat buñ ko waxee fii ci fiq mooy loo xam ne amul ruu te bàyyi ko ci lu am ruu loolu nag ak lu mën doon ci xeetu suuf mbaa xeetu gàncax rek laab na ndegam du màndal su dee màndal moom sobe la waaye li fekk du màndal rek laab na bu dee lu mel ni lem nag wala soow wala diw ñor amuñu ruu waaye dañuy bàyyi ko ci lu am ruu kon ku ci nay am àtte boppam lem mën ngaa jàpp ne lu laab la soow nag moom day topp rek la soow mu bàyyi ko bu dee lu yoon araama la lekk soow ma sobe la bu dee lu yoon sib ku ko lekk soow ma lu ñu sib la bu dee lu yoon nangu ku ko lekk mooy yoon daganal na ku ko lekk te itam meddut mbaa dañ ko rendi soow ma laab na su xasee medd nag soow ma yàppoo ñoo yemoo dara laabu ca diw ñor day topp rek àtteb soow ñoo bokk boobu àtte deret day ñaari xaaj deret ji nga xam ne bu ñu rendee rek mu tàmbalee wal di sotti ku bàyyi ko ci fu ne ci yaram wi ak bu ñu jamee fenn ci yaram wi deret ji tàmbalee nàcc moo tudd addamu almasfuux jooju sobe la deret ji mu tollu nag te wax ne moom jullaab la mooy ji nga xam day nekk ci xol mbaa mu nekk ci sëddiit yi mbaa ñi dagg yàpp yi muy nacc jooju lañ wax ne moom jullaab la wa tax sarabina wa huwa maa yujadu fi qalbi alxayawaan aw xuruqihi aw maa yarshaxu min allaxmi li annahu min ajzaa il mudakka kon deret joo xam ne la ko tax a nàcc sabab la dañoo dagg sadiit ga tax koo nàcc wala ñu xotti xol ba tax koo nàcc wala ñuy dagg yàppoo muy nàcc jooju moo laab lu yoon nangu ku ko lekk te ñu rendi ko boole ca lépp lu ca bokk rek laab na moo xam daa bokk ca yax ba mbaa xeeti caas yi wala béjjën ba wala weya wala bu dee lu anu dongu moom daal ndegam yoon nangu na ku ko lekk dañ ko rend rek kon lu ca bokk rek laab na ba mu des nag ya nga xam ne dañ ko caa génne woon ni ki deret ja nga xam ne da ngay rend rek mu sottiku mbaa ngay fees gis mu tàmbalee nàcc rek di jékki-jékki di génn ak it nga jàpp ne mas yu ak wadd yu ak mën yu daañu ko wax ci kanam doonte sax daa bàyyi ko ci lu dagana lekk it du tee ci yoonu Maalik moom sobe lañ koy jàppee loo xam ne it yoon da ko sib rek niki yi am ab sell tey fàdd seeni moroom bu dee ci yoonu Maalik dañ ko siba lekk rek yooyu bi ñu xasee rendi lu ca bokk rek day daal di laab niki dara sax mënees na caa julli mënees na ko jaay ndax dañuy jàpp ne ndegam sib rek la buñ ko xasee rendi derwa laab na buñ ko defaree ba mu set rek mën caa julli mën koo jaay mu des nag lu yoon araamal ku ko lekk niki mbaam xoox wala mbaam yi ci kër gi wala bax la wala fas bu dee ci yoonu Maalik yooyu moom ñu rendi ko ak mu medd ak am lu daggee ca moom rot ci jamono mi dund ñoo ci yemoo lépp lu ca bokk rek sobe lañ koy jàppee lépp loo xam ne ci géej lay juddoo moo xam jën la moo xam day xeetu jësig wala bonaatu géej mbaa weneen rab woo xam ne daal moom ci géej la dëkk ni ki am na lu ñu wax rin siirul baxri mbaam xooxu géej am lu ñu wax kalbul baxri xajub géej am lu ñu wax sax aadamiyul baxri doomi aadamay géej ndax daa am lu nekk ca géej juddoo ca dëkk ca te muru mbaam xoox mbaa mu muru xaj mbaa mu muru doomi aadama ba ñu leen di tudde noonu yooyu yëpp nag lu ci mét itam teewu koo laab moom laab na ci lekk laab na itam ci bu la taqee te benn sobe laawu ca nga mën koo julliwaale waaye nag la cay nuru doomi aadama di rabu géej dana araam doomi aadama joteeg moom ni muy joteeg jigéen ku ko def ñu ko jàppe njaaloo nag di ko géttan waaye atikat bàyyi seet nam ko war a yare mu yare ko noona mel rek ku fekk bahima am xaram mbaa bëy mbaa leneen mu joteeg moom joteeg njaaloo rek atikat baa ko yar na ca yenn noonu la mel nag ku jàpp rabu géej woowu joteeg moom kon lépp lu yàlla bind mu dëkk ci biir géej nga xam ne fa la juddoo fa la dëkk mën naa am sax mu bàyyi koo fa ñëw ci suuf si ba yàgg fi waaye moom daal ci ni ko yàlla bindee ci ndox lay juddoo te lay dëkk loola bu meddee itam teewu koo làpp lépp loo xam ne amul deret ji sottiku bu meddee itam teewu koo làpp ne xeeti mbóot yeeg xeeti gunóor yeeg xeeti jiit yi yu mel noonu yu bare bari lañu boo leen jamoon deret du sottiku yooyu nag bu ñu xësee mëdd teewu leen a laab teewu leen a laab ci boo ko julliwaalee du wàññi dara bu soppi woon am ndox it ñu jàpp ne lu laab moo soppi ndox waaye nag taxul nga sañ leen a lekk ci buñ méddee ndax day aajowoo rendi te rendi wu ñu leen bu ñu ne day aajowoo rendi nag mën naa mu jaaxal la ndax aw sax noo koy jàppee di ko rendi wala aw mbóot wala jiit waaye saye boo jàpp ne lépp loo ko def te jublu ci rendi rek ba mu dee rek loola ak rendi la loo dagg ca moom doonte tànk baa mbaa leneen ca moom te yéene ci rendi rek loola ak rendi la bu dee sax wi sax moom bu nekkee ci doomu gerte wala ci leneen lu laab man ngaa jekki-jekki rek yéene ci rendi daal di koy lekkaale mook la mu nekk niki doomu gerte ba wala beneen doomu garab ba nga seetlu foofu ne li ñu wax aw teeñ dañuy jàpp ne am na deret joo xam ne boo ko jamee mu sottiku kon moom bu xësee médd laabatut sobe la doo ko sañ a julliwaale nga xam ne kon teeñ yi deewut mën nga koo julliwaale te teeñ yi nga xam ne ñoo xas dee doo leen mën a julliwaale loolu mat naa xàmmee ndax bi muy dund laab na te bu xasee médd rek am na deret ju sottiku kon sobe la day leeral foofu ne unk wala jaan wala rab wu ñu wax lézard ak mboole mi nga xam ne am nañu deret ji sottiku bu ñu xësee médd rek sobe lañu yooyu nag dañoo bari lool ñi nga xam te yàlla sàkk leen ñu am deret joo mën a jàmm mu sottiku dañoo bari yooyu yëpp nag na la wóor ne lu ci xës médd rek sobe la lu may nag muy mbeddum géej mi nga waxoon léegi nee nga woon lu dëkk ci géej moom su meddee itam teewu ko laab bu dee lu àndu dongu donguy sew yi nga xam ne an nga koo din te du ko yëg ni ki sax booy jàpp ganaar mu jekki-jekki topp ci say loxo loola laab na moo xam loola ngay dund moo xam loola dafa medd ba tey kawar moo xam day kawaru xarag bay wala muy kawaruk doomi aadama mbaa fas mbaa baxla mbaa mbaam wala muy kawaruk gëléem mbaa lëg lu ci mën doon daal buñ ko xuufee rek ca kaw moo xam loola ngay dund moo xam loola dundut loola laab na bu loola xasee medd nag mbaa ba muy dund la sax ñu suqee ko ci der yaram wa nga xam day metti loolee ñu suqee ci der yaram muy metti moom sobe lay doon moo xam loola daa medd moo xam loola day dund ñu dindee ko ca moom bu doon nag lu dagan a lekk te ñu rendi ko moom kawar ga ak der wa ak bu dee borom dungu ya dungu mag waag yu ndaw ya yépp ay bokk làpp kon da ngay takk ne loolu nga xam ne meddam sobe la loo ci xam ne ba muy dund boo ko doon dindi du ko yëg du metti bu xasee medd itam boo ko soxlaa rek mën nga koo dindi jëfandikoo waaye nag loo ci xam ne ba muy dund soo ko doon dindi ci moom muy metti nag bu xasee medd te meddam nekk sobe rek jeex na sobe lay doon jamono ya muy dund lépp loo dindee ci moom rek ci luy metti daañu ko leeral ci kanam sobe lay doon sàngara la wax ne bu demee bu wëri ya soppi ko bineegar laab na ba tey sàngara bu soppi ko aw doj te boo ko seeyalee du ko tax a màndal laab na waaye nag bu soppi ko aw doj te boo ko seeyalee muy màndal nag kon laabut mbay itam buñ ko suuxatee sobe doonte sax dañuy lekk xob ya noonu ni ki supame wala salaat wala bisaabit suuxate gañ ko suuxate sobe du ca wàññi dara teewu koo laab bu dee lu ñuy jëfandikoo reen ya it ni ki karoot ak yu bari yi nga xam suuxate ga sobe du ca wàññi dara doomi aadama bu xasee génn àdduna boo tegee fee yonante yi dañuy wute ci ndax jëmm jë laab na ba tey wala laabut wax ji gën a wóor mooy waaw doomi aadama bu faatoo teewu koo laab bu dee yonante moom maase nañ ci ne bu faatoo itam teewu koo laab bu ñu nee nangam sobe la buñ ko lakkee ba mu def ab doom mbaa ñu koy lakk muy tàkk ka saxar doom boobee laab na saxar say bàyyi ko ci bañ ko lakkee laab na nga xam ne boo jëloon morso bi yàpp lakk ko ci gël ba muy doom bu tàng ba wala nga di ko sindal ca saxar sa saas di ko dugg moom morso bi yàpp mbaa leneen du ko tee laab waaye nag lu bokk ca sobe sa te takkut bu taqee ca la nga doon lakk faaw nga war koo dindi ndax loola moom sobe la mooy li ñu waxoon léegi dane doomi aadama wax ji gën a wóor mooy bu faatoo itam teewu koo laab doonte da di ab yéefarit du tee rek jëmm ja moom laab na nga xam ne jigéen bu doomam faatoo mu boot ko julliwaale ko te fekk taqul seen sobe dara nekku ca ndax lu laab rek la julliwaale dafa joxe foofu takk-takk boo xam ne mën nga koo jàpp mooy da ngay wax ne lépp loo xam ne bu méddee du tee yoon ne laab na te loolu mooy yi nga xam ne amuñu deret ji sottiku ni ki aw sax wala njëréer lu mel noonu lu bàyyi ko ci moom ci waxtu muy dund ak lu bàyyi ko ca moom ci gannaaw bam faatoo dañuy àtte ne mu laab la nga teg ci ne lépp loo xam dañ ne méddam sobe la te mooy rek lu am deret di sottiku te du doomi aadama bu ko see médd rek sobe la loola loo ca dindee gannaaw ba méddee te muy loo xam ne ba muy dund boo ko ci doon dindee mu di ko yëg muy metti loola sobe lay doon loo mënoon dindi ca moom ba muy dund nag te du ko yëg du metti bu ko see metti itam boo ko soxlaa mën nga koo dindi jariñoo niñ ko waxe woon léegi li ci dolli ko foofu nag mooy mu wër la ne loolee di dund te nga xam ne bu meddoon ñu ne medd mi sobe la jamono ya mu dund lu daggee ci moom rek sobe lañ koy jàppee ni ki tey boo doon jàpp ganaar bëgg ko rendi xëcc rek far tànk ba topp la tànk boobee daggee ca moom te fekk muy dund tànk ba sobe la doo ko sañ a lekk bu la ca dara taqee faaw nga dindi ko doo ko mën a julliwaale soo bëggoon na jàpp aw nag bëgg koo rendi mu naqaree jàpp tax nga dóor ko lu ak ñaw ka bu ci ñaw ka la daggee lu bokk ci yàpp wa loolee mu daggee ci yàpp wa sobe lay doon dee su ko mën a lekk dee su ko mën a julliwaale du tee nag loolee dund nga ko doon jàpp ba am loo dindee ca moom mu wax ne la nga dindee ca moom sobe la du tee bu fekkee gaawoo ko ci pàddu rek ba tey mën nga koo rendi te boo ko rendi jëmm ja daañu ko mën a lekk waaye nag boo xësee gaañ ci pàddu moom jeex na dañuy jàpp ne medd na ba noppi boo ko rendee du ko tax a baax mel aw nag mbaa leneen bu naqaree jàpp naqaree rendi ba tax ñu ko doon sànni balu fetal su balu fetal ba dalee ca tànk ba rek foo xam ne du pàddu kon nañ koy daal di gaaw rendi loolu baax na waaye su bal ba rëccee dal ci pàddu rek jeex na medd na ba noppi buñ ko rendee du baax kon da ngay takk foofu ne lépp loo xam ne nii day dund waaye am na deret ji sottiku nga xam ne su meddoon rek yoon ne sobe la jamono mu dund loo daggee ca moom lu bàyyi ko ca moom rek sobe lañ koy jàppee loolu moo tax ñuy wute ci maye deret ndax maye deret dañuy dindee deret ci doomi aadama ji dund def ko ci keneen ñu bari nag ci ñi ci ubbee dañuy wax ne dagan na ndax faj lor moo tax ñu daganal ko nga bañ a fàtte foofu ne bu ñu nee doomi aadama bu xësee faatu teewu ko laab lan waxoon ne sobele ci moom ba muy dund it bu faatoo ba tey sobelay doon ni ki sawma ak xayta ya ak lu mel ne wadd yóog mat yóog man yóog deret ji nga xam ne boo jamee rek mu sottiku mu tàmbalee tuuru yooyu yëpp nam doone woon sobe ca ba muy dund xësee génn àdduna moom doomi aadama itam yooyu ba tey sobe lay doon loo ci xam ne nag ba muy dund mëneesoon na koo dindi te du metti ci moom bu faatoo itam mënees na koo dindi te du ko taxa doon sobe mel ne léew yi di weye wala ñu jemp kawar ga ci sisu mbaalu ko nuru nga xam ne watewuñ ko ci dund dund deru yaram wa yu mel noonu nga xam ne ba muy dund buñ ko doon dindi du metti gannaaw bu génnee àdduna itam noonu la laab na muy ci doomi aadama muy ci leneen ci yi nga xam ne seen medd sobe la ni lu ko waxe woon ay yoon yi yoon